mbokk yi Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa wuuteeg ñu bëri gis-gis ci li nga xam ni moom mooy gàmmu moo tax nim ci daan ñaaxee gisuñu kenn koo xam ne daan na ci noon noonu bir na ni yonent bi sallallahu alayhi wa depuis juddoom la ñooñ suuf texe ñooñ asamaan texe moo tax fàttaliku guddik juddoom dafay nekk ni braas euh, ci milla bi nga xam ne moom lañ nekk muy millal islaamiya waaye dafay nekk niitukaay ci ummatul islaamiya waaye day nekk ommatukaay bi lay ommat jëmale la ci aljana jooju nga xam ne mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxee ci ginnaaw ne ñenn ñi seen nekku li nga xam ne moom mooy faasiq wala euh, mbonte gi nga xam ne moom lañuy ñuy nëbb ci seen biir di feeñal mbaax moo waral seen làmmiñ di tudd gàmmu di ci teg ne bidaa la boo xam ne dañ koo ŋàññi ala kulli xaal wax nañ sànq ne xalifa ñaareel bi nga xam ne mooy xalifa yonantu bi sallallahu alayhi wa rafet lu woon na li xalifa bu njëkk ba def muy dajale alquran xam ne Abu Bakrin as-Siddiq radiallahu anhu moo ko def moom mu ñëw sos lu bees muy salaatu tarawih teg ci ne ni'matal bidaa hazihi boroom xam-xam yëpp dëggal ni bidaa bu rafet am na bu bu ñu ŋàññi am na comme ni ko boroom xam-xam yi jàngale loolu nag di firndeel firnde bu rëy yonent bi alayhi salaatu wassalaam màggal gi nga xam ne màggal na ko bisu juddoom ne zaaka yawmun fihi wulittu boobu bis la boo xam ne ci laa juddu mu feddali ko ci keroog ba nga xamee ni dem na madinatul munawwara gis yahud yi di woor bisu asura mu laaj leen lu ko waral ñu xamal ko ni ci la yàlla labalee firawna musal ci muusa ñun ñu koy woor mu ne kon ñun ñoo gën a yey ci yeen ci Muusa mu woor ko di féete victoire Muusa di ko sante yàlla kon moom mi def loolu ci xàqu beneen yonantu def ko ci xàqu boppam yell na yi tamit ñun ñu taxaw def ko ci xàqam moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu daan féetee gàmmu at bu jot di màggal yonantu sallallahu alayhi wa sallam daan ko wekk waaye daan ñaaxee ci ñu topp ay ndigalu yonantu sallallahu alayhi wa sallam bàyyi terem daan wone mbëggeelam ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sax ahbabtuhu xatta uraniya kuntuhu wa rabbiya lam yaxluq makaanan wala waxta bëgg naa ko sax ba far ñu gis ma ma moom te jamono jooju ma koy bëgg sama borom bindagul makaan bindagul waxtu mbëggeelam moo ko jural koom-koomam gim am yëpp ci yàlla xabaani muraadi min qabli ilmi wa nachati fa min ni nawalul kullu wal kullu maanihi loolu yépp mi ngi ko am ci mbëggeelu yonantu bi sallallahu alayhi wa baay gisoon ni yonantu boobu dañ ko war a màggal dañ ko war a wekk dañ ko war a topp dañ ko war a bëgg comme ni ko alquranul karim digle ne falladina aamanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabacu nuura alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun buur ne gaa ñi nga xam ne ñoo gëm yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam te dëgëral ko dimbali ko topp leer wi nga xam ne moom lañ wàccee ànd ak moom ñooñ ñooy ñi taxe moo tax yonantu bi salallahu alayhi wa sallam moom ci boppam màggal juddug boppam bal sax mu rendilaat boppam ak gàtt ngir ngéntewaat boppam comme niñ ko xamee ndax euh, maamam Abdul Mutalib. ngénte woon na ko ci juróom-ñaareelu fan ci juddoom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ngéntewaat boppam e, laaj nañ ko nag lu waral ngay woor bisu altine mu ne ci bés boobu laa judd kon loolu yëpp tegtal la yu rëy yoo xam ne moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu mooy ci lii nga xam ne moom mooy gàmmu te sax di ko dëgëralee aaya alquran wa kullan naqussu alayka min ambaa'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'aadak li ñu leen di nettali ñu lay nettali yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam solo ak yonentu yu la jitu won dañ la koy nettali ngir dëgërale ko sa xol bàyyi su fekkee yonentu bi sallallahu alaihi wasallam mi gëna degeer ñëpp gëm ñëpp yalla may ko leppam mom lay yalla di wax ni li sabbita manu sabbitu bihi fuadak kon kon sàkkantumaak ñun ñi nga xamne ñun ñoy jaam yi gëna lott bu ñuy jàngal li nga xam ne moom mooy euh, siirab yonent bi sallallahu alayhi wasallam duñ ci jëlee dara lu dul gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy suñu ngëm yàlla moo tax Cheikh Ibrahim daan ko def amoon ci nag ay gis-gis dinañ ci ñëw benn par benn incha allah euh, Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa amoon ay gis-gis yu bëri ci gàmm bu ñu delloo ci xutba bi nga xam ne defoon na ko ci mille cent quatre vingt mu ngi ci jawaahirul rasaa'il euh, dafa wone ay jàngat yu am solo ci xutba boobu gis-gisam bu njëkk moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci gàmmu mooy gàmmu iidun sanawi la maanaam feet la boo xam ne feet annuel la at bu jot dañ ko war a feete waaye nag mu am ñum ko jagleel mu ne li ahli mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñeel ñi nga xam ne dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa kon képp koo xam ne dangay taxaw di tere nit ñi ñuy feetoo guddik juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow sa mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa yow yaa koy woote woo rek waaye nekkut fa ndax yonentu boo ko bëggee danga koy jox lépp comme ni ko imaamul Buseyri wax waxe wansub ila zaatihi ma chita min sarafin wansub ila qadrihi ma chita min azami jëmmi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lu la neex ci tedd nga askanale ko ko wansub ila qadrihi ma chita min azami dayob yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lu la neex ci màgg askanale ko ndax loo ko jox rek doyut ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fawqa kulli amrin moo kaw bépp mbir moo tax baay gis-gis bi mu am ci mawlid mooy mawlid feet annuelle la ñeel ñi nga xam ne ñoo bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa kon li ñu war ñun mooy ñu góor góorlu ci bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa ndax ci bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ mën a texe ñaareel bi Baay dafa gis ni gàmmu benn congrès la boo xam ne ci la soppee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yépp di dajee min mashaariqil ardi ila magharibiha ci penku àdduna bi ba ci soow ba ci janub ba ci simal ñëpp benn kongre bi leen di dajale mooy kongre gi nga xam ne moom mooy gàmmu bal waa suuf ci la ñuy dajeeg waa asamaan nit ñi ci la ñuy dajeeg jinne yi jamaadaat yi xayawaanaat yi ñëpp ci lañuy daje loolu nag li ko sabab mooy bég ci juddug yonantu bi sallallahu alayhi wa ak màggal ko wax nañ sànq ne bég ci yonantu bi sallallahu alayhi wa farata la bu yàlla farataal ci ñun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu loolu lu wér la wa xayru mimma yajmaun wax leen ne leen ci ngëneel ak yàlla bi nga xam ne mooy xam-xam ak yermandem bi nga xam ne mooy yonantubi salallah alehi wasallam ci loolu kot kot ngeen war a bég te loolu mooy li gën ci li ngeen war a daje kon mu tamar boobu nga xam ne ci la mbooleem soppe yonantubi salallahu alehi wasallama di daje occasion la boo xam ne dañ cee war a profité profito ci occasion boobu ci lan mooy jàllale ay messages yoo xam ne dina convaincre mbooleem jullit mu mën a tënku ci jàngale yonantu sallallahu alayhi wa bàyyi mbooleem loo xam ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam tere na ko ñetteel bi ci gis-gis yu Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu am ci gàmmu mooy Cheikh Ibrahim dafa gis ni dafa bokk ci wareef yi gën a feddaliku mooy sóobu ci gàmmu sóobu ci gàmmu waaye nag ci ban anam la ñuy sooboo ci gàmm Cheikh ne anam gi ñu war a sooboo ci gàmm mooy suluku ibadatin soobug jaamu yàlla duut soobu goo xam ne dañuy dem rekk daje Medina Baye wala daje Tiwaawoon wala daje feneen ak feneen ngir daje noonu rek lekk ak naan tasaaroo déedéet waaye soobu ci yoon woowu jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala kon dañoo war a xam ni liggéey bu rëy moo ñu fay xaar muy daje ngir jaamu borom bi subhanahu wa lu ñuy jaamu borom bi subhanahu wa ci guddi googu ñu haddiyalay ko yonantu bi sallallahu alayhi wa waaye nag duut lu ñuy tuddee suluk sulukun ijtimaa suluku ijtimaiya maanaam soobu waay boo xam ne dañ koy soobu ngir daje rek ay xeet yu bari daje déedéet xeet yu bari nañ daje dajeci kaw lan dajeci kaw jaamu borom bi subhanahu wa taala ci ay façon yu wute loolu la dajewuñ ngir fo dajewuñ ngir caaxaan dajewuñ ngir tàccu dajewuñ ngir ngir ngir sar xolle waaye dañoo daje ngir jaamu borom bi subhanahu wa taala tudd yàlla julli ci yonantu bi salallah alih wa sallam jàngalante siiraab yonantu bi salallah alih wa sallam ngir ñu mën a roy ci moom lii mooy gis-gisu Cheikh Ibrahim radiyallahu an Cheikh Ibrahim jàngale na ndekete ah, gàmmu politique la te nitu lislaam yi terewuñ leen politique waaye seen politique dafa war a am fum jëm mooy luy yëkkati raayay lislaam ci wax ak jëf kon nitu lislaam yi buñ dajale doomu aadama yëpp ci benn bërëb war def benn politique boo xam ne fexe ba jàllale ay message yoo xam ne dañ ciy yëkkatee raayab lislaam ci seeni wax waaye jëf-jëf joo xam ne dañ ciy yëkkatee raayab lislaam kon loolu bokk na ci njàngaleem Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci euh, li nga xam ne moom mooy gàmm ba tey moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu Eh, jàngale na ci beneen xutba boo xam ne mu ngi ko defoon mille trois cent quarante mille trois cent quatre vingt quatre wane ni eh, umma bii nga xam ne mooy ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngëneel gi nga xam ne yàlla def na ko ci ñoom ngëneel li dañ ko war a dafa yey ñu ñu ñu ndokkeel leen ci te ndokkeel googu mi ngi war a dooree ci mawlidul huda mawlidul islam مولد السلام واي شيخ ابراهيم رضي الله عنه غيس غيسام بوو داف كو تخطيطال مانام داف كو بلانيفي تيغال نانيو بلانيفيكاسيون بو خامني كيب كو جار سي يون وو سا غام دينا موتشو ايب تا دينج جي جيلي يول و بري بري bi ci njëkk mooy baay dafa wax ci lettre boobu ne ni ñuy defee mawlit li ci njëkk mooy tasxiihul sellal yeesalaat wéralaat li nga xam ne mooy ngëm yàlla kon loolu xol bi la moo tax bàyyi waxoon yasfu fuaadi wa yaxlul ayshu xiina bada rabiu man bi ulaahu yaatalimu daru sama xol day set wecc sama dund neex saa yu feeñee weer ak maanaam rabiu ki nga xam ne ci kaweem la mu dar kawe kon loolu di setal xol bi mooy yeesalaat sa ngëm yàlla ci delloo nguur borom bi Subhanahu wa taala moom yi borom asamaan di borom suuf nga xam ne amut compagnon maanaam amul àndandoo bu jigéen amul doom kenn la kenn du ko bokkaale kenn moom kott la moom yàlla kennal yàlla loolu mooy point bu njëkk bàyyi jàngale ko leeral ko nañ ñaareelu point bi mooy itqaanul ibadati lillahi taala bil ixlaas nga yéwénal jaamu yàlla bi nga xam ne yaa ngi koy jaamu xarañee ko maanaam doo toog ba dem gàmmu di jàng foofu nooy jaamoo yàlla wala nan ngay defee sa gàmmu déedéet da nga ko war a xarañee sikar yi na set julli ci yonantu bi sallallahu alayhi na bari dajé di waxtaan ci yàlla ci yonantu ci cheikh tidiane tu cheikh ibrahim radiyallahu anhu na bari di fàttalante borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam fàttaliku sir ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam na bari loolu rek mom moy itqanul ibadati lillahi taala nak da fay ànd ak luñuy tuddé ikhlas muy selal buur wax na ci téeréem bi ne wa ma umiru illa li yabdullaha muxlisina lahu xunafaa wa yuqimu salaata wa yutu zakaat wa zalika diinul qayima digalee fu ma leen lu dul ñu jaamu yàlla sellalal ko jaamu gi sellalal ko diineem ji taxawal julli joxe azaka ne lii mooy diinul qayima diine ju jub kon jamu yàlla bu àndut ak sellal jaamu googu wérut kon baay jàngal nañu foofu ne ñaareelu ponk bi nga xam ne maanaam eh, ñaareelu rëdd bi nga xam ne rëddal nañu ko pour ñu jaar si mooy ñu fexe ba ñoŋeel suñu jaamu yàlla fexe ba mu ànd ak lixlaas ndax iman lu ñuy wax la ci làmmiñ di ko dëggal ci xol cër yi di ko jëfee mu yokk ci topp yàlla di wàññeeku ci ci mooy yàlla te dafa bokk ci mandarga yi nga xam ne dafay feeñal limaanu doomu aadama mooy nga bëggal sa mbokk jullit li nga bëggal sa bopp di bëgg te yàlla rekk tax di bañ te yàlla rekk tax loolu la Cheikh Ibrahim radiallahu anhu jàngale ñetteel bi ci taxtiitu Cheikh Ibrahim ci gàmmu mooy al munafasatu fi mahabbati habibihi sallallahu alayhi wa sallam li annahu habibullah fa man ahaba allah xaqan ahaba abdahu wa habibahu wa maarifatahu wa ahaba abdahu wa habibahu bàyyi ne ñetteelu plan bi mooy ngay njëkkante ñu njëkkante ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi sallallahu alayhi nag du ci làmmiñ rek di ko wax déedéet bëgg yonent bi sallallahu alayhi dafa war a feeñ ci say jëf maanaam di jëfee lim digle di tere lim bàyyi di bàyyi lim tere di bari looy julli ci moom di xalaat ci moom di jàng siiraam ngir mën koo roy ndax yonent boobu mooy soppeb yàlla bi te képp koo xam ne bëgg nga yàlla dëgg di nga bëgg jaamam bi di nga bëgg soppeem bi ñaareel ñeenteel bi mooy bëgg xam dund ak yonantu maarifatu xayaati yi sallallahu alayhi wa sallam dund yonantu bi sallallahu alayhi kenn mënut koo xam lu dut ni rek dañ laa jàngal siiraam te boo jàngee siiraam dinga ko xam di ci jàngee yan jikko la jikko woon di nga ci jàngee ay mbir am solo yoo xam ne dina la jëriñ ci sa dund kon Cheikh Ibrahim plan yii la plan yi plan yii la planifié woon pour ñu di ko gàmmoo eh, boo demee ci lettre am boobu ba tey da ngay gis ni mu lay jàngal ne ñu bokk na ci plan yim teg ci gàmmu mooy ñu fexe ba darsi yi nga xam ne dañ koy jàngale ci gàmmu gi ci dundug yonantu bi sallallahu alayhi wa yonentu boobu nga xam ne mooy mujaahid bu mag bi moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni ngir mu libeere doomu aadama yi ci dundu bàyyi ma biñ daan dund moom sallallahu alayhi wa loolu nga xam ne ñu ngi koy jàngatee ci siiram dañ ko war a jëfe bokk na ci yooyu ndénkaane yu am solo yi nga xam ne ndénkaane woon na ko ci ñu góorgóorlu tey jihaad te fonk yi nga xam ne ñoom ñooy chart yi donc yi nga xam ne ñoom ñooy charte yi nga xam ne ñoo tënk jullit bi ci biir lislaam loolu yëpp Cheikh Ibrahim daan na ko jàngale ci gàmm bokk na ci tamit góor góorgóorlu di liggéey di fàggu loo dundee eh, mu xam ni mu xam le ni doomu aadama faw mu sonn su bëggee am lu teey ndax li gën a teey ci nit ki di lekk mooy loo xam ne mu ngi ko fàggoo ci ay loxoy boppam ci biir loolu Cheikh Ibrahim jàngale na ne Eh, baa jàngale ne nga ne loolu yàlla defal umma bi dafa yeeye ñu ndokkeel ko ci waaye ndokkeel ci yonantu ci juddug jub maanaam juddug aji jub tey juble juddug ki nga xam ne mooy jëmmi lislaam juddug ki nga xam ne mooy jëmmi jàmm juddug ki nga xam ne moo libere doomu aadama yi juddub ki nga xam ne mooy jëmmi tedd nga di jëmmi màgg di jëmmi yëkkatiku doomu adama guddi googu wala bis boobu wala bis yooyu ci weer woowu di feet yu rëy rëy rëy rëy comme niñ ko waxee ci lu ñu jiitaloon bàyyi firndeel ni guddi googu mooy iidul ayaat mooy feetu feet yi comme ni ko suñ maam si daalaaj malik si radiallahu anhu waye sururun fi sururin fi sururin waidun duna ayadil uyuni mi ngi noonu bàyyi ne mooy congrès bi nga xam ne ñooñ mbëggeel ak cofeel ci la ñuy dajee ci mboolem ko àdduna bi bu ko defee ñi nga xam ne nag dañoo am taxaquq ci yàlla dañuy gis ni feete guddi gàmmu dafa bokk ci sunna yi yàlla gërëm waaye dafa bokk ci jëf yu baax yi te dafa am ay ngëneel yu bëree bëri yoo xam ne dafay tegtale eh, ak tedd nga bu ci njëkk mooy fàttaliku juddu yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moom moo xettali jaam ci réer eh, jaar jaaram ni ko yàlla yónnee gàddaayam yiw yu rëy yi ko yàlla defal tam sotti ko ci ñun ñaareel bi mooy feeñal mbégte mi nëbbu won ci biir xol ak cofeel li nga xam ne nëbbu woon na ci biir xol ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi mooy yittewoo tudd yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko tàgg jàng alquran jàng siiram ak i jaar-jaaram ngir mën a mucc lu am solo la feeñal mbëggeel bi nëbbu woon mbégte meeg ci juddu yonantu bi sallallahu góor góorlu ci tudd yàlla tagg yonantu bi sallallahu alayhi julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam jàng siiraam yoon yi nga xam ne fala jaaroon jaarale fi ay saxaabaam bañ mucc waaye tamit yéwén gi nga xam ne yéwénoon na ko ci xam-xam ak yéwén gi nga xam ne yéwénoon na ko ci baaxal ay doomu aadama ak góor góorgóorlu gi nga xam ne góor woon na ko ba dëgëral ay ponki lislaam waaye nag feeñal mbégte ci yonantu boobu nga xam ne mooy jàmm ñeel mbooleem mbindeef yi eh, loolu nag pour mu am faaw rek nga tënk ko ci ay chart charte yi nga koy tënk mooy nga fexe ba daray bidaa du ci rax dara ci lu ñuy bañ maanaam munkaraat yeeg muharramaat yi nga xam ne dafay wuuteeg sharia nga dindi ko ci ba mu set wecc comme ni ko Cheikh Ibrahim radiallahu anhu jàngale Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bokkoon na ci ay message am ci gàmmu di woote luy bennale mboolem xeet yi di leen jëmale ci li nga xam ne mooy saada te loolu duwut lenn lu dut ñu jàpp ci diine ji nga xam ne mooy diine lislaam am na lettre bu mu bindoon ci mille trois wala ci xutba bi mu defoon ci mille trois cent quatre wax ni فإنه بمناسبة ذكرى مولده الشريف أجدد دعوتي لجميع شعوب العالم إلى السعادة التي هي التمسك بدين الله الخالد دين الإسلام دين السلام والحرية والأخوة والمحبة والمساواة وأقول كما قال المولى جل شأنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله بآية بجيخ باي ci lettre boobu dafa ne maa ngi profité ci occasion fàttaliku juddu yonentu sallallahu alayhi di salaat sama woote bi may woo ñeel mboolem show bi di leen woo jëmal leen ci texe te texe googu mooy jàpp ci diina diine yàlla gi sax muy diine lislaam diine ji nga xam ne mooy jàmm diine ji nga xam ne mooy liberté diine ji nga xam ne diinay mbokkoo la diiney mbëgge bëggante la diiney yemoo yemale mu damay wax rek li borom bi waxoon yéen ñi nga xam ne yéen ay ahlul kitaab ñëw leen ci benn baat bi nga xam ne moo ñuy yemale ñun ñëpp te mooy bu ñu jaamu ku dul yàlla te buñ ko bokkaale kenn te bu kenn ci ñun jàppee keneen yàlla kon loolu rek la Baye daan woote benn euh, Baye daan na fàttali saa su ne wane ni fii maanaam maanaam dara du fi yeween lu dul ci lislaam lislaam nag dara du ci yéwén lu dul ci ñaari sart yu am solo mooy pas-pas ak sharia mu ne pas-pas nag boo xasee ba gëm yàlla faaw nga feeñal ko qulu amanna billahi ma unzila ilayna meññeefu ngëm yàlla googu nag mooy imaan imaan mooy meññeefab sharia te sharia meññeefam mooy jëf li yàlla santaane ak rafet jikko E, mu teg ci ne gaa ñi nga xam ne dañoo gëm alquran inna alladina amanu wa kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula yàlla defal na leen seen wàccuwaay muy aljanay firdaws fa la ñuy sax kon e, lii mooy yoonu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci gàmm mu des nag Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ana fan la tegoon yonantu bi sallallahu alayhi wa ak yonantu bi sallallahu alayhi wa mooy kan ci Cheikh Ibrahim